sëñ bi bàyyiwul kenn mi ngi sant ñëpp nee ginnaaw loolu sëriñ bi bi ñuy waajal bis bi nee dañoo demoon ca préfet préfet bu Mbàkke def fa CRD bi moom nag nee na lam tënkoon ak sëñ bi neena defu ci dara day leer defu ko de waaye sant nañ yàlla nag bu baax ndax ki ko yilif di fal di follee ko la ko war def na ko président Macky sàll sant nañ la gërëm nañ la njabootu Cheikh Rafal gi préfet bu Mbàkke bii bisub Cheikh Rafal bi ñëwee nee na bisub Cheikh Rafal bi neexu ko ndax woo na ko ñu wax ay kàddu ñoom ñaar nee na ren jii muy 2023 le 3 octobre bis bi dafa gën a yokku de bis bi daa jëm ci kanam président Macky Sall def na ci lu mu ci laawul def ndef ci luñ ci daawul def kon nag préfet su gàntu li liggéey Serigne Fall bi nee loolu ñoruñu loolu moo xam ginnaaw loolu nee na mi ngi sant police yi nga xam ne ñoo taxaw ñu indi leen fii nga xam ne téeméeri nit la ak juróom fukk cent cinquante personnes ñoo fi wàcc nee na mi ngi gërëm Antoine Diome di ko xamal ñii nga yebaloon na ko bëgg woon defe nañ ko noonu de gaañaa ngi ni taxaw nee na ñëpp gis nañ leen Cheikh Bass Abdou Khadir Mbacke mu yor kàddu Serigne Touba gi leeral na ko lépp moom sëñ Bass nii la demee Moussa Antoine Diome nee ñi ngi lay yónnee ay kàddu yu cant ni ko police bi nga yebaloon taxaw nañ fi de def leen war a def waa croix ruus sant nañ leen def nañ leen war a def maire de Abdoulahat Ka nee ñu ngi koy sant di ko gërëm doomi sëñ bee nee liñ ko santoon lam ci man def na ko kémti lay kartanam yàlla rek moo mën a matale loolu ñu ngi koy séeréen ñëpp nee na ginnaaw loolu di sant maire yi nga xam ne teew na fi muy maire Mesere muy sëriñ Moustapha Mbacke teew na fi ak meenu ngay di Cheikh Gadiaga teew na fi ak mboolem maire bu fi teew nee bu duggee ci lim ko dina juum waaye wootub sëñ Bassirou Fall alxuraan bii daal ñëpp wuy si nañ ko kon ñu ngi séeréel mboole bi ñu leen ni tuubaat ca kanam bis bi taxaw taxawaay bu rafet sëriñ Abibu Mbàkke moom sëriñ Fàllu Nuuru Daarayni ñëw na fii ci sëriñ Ngounda Fall daanoon na sax moom mi bari ko nee moo daanu sëñ Baara ni sëñ Habib bis bu ma yaa ko jagal ndax li tax mu wax ko mooy bi ñu defee CRDD lam tënkoon ak préfet ba mu ko deful sëriñ Tuubaa moo yebal ab sëtam mu ñëw def ko ni ko bëggee ndox mi fi nekkul lépp sëñ Habib Mbàkke ko fi def làmp yi moo ko leeral forage bi daa paanoon waaye sëñ Habib moom fi indi ay baas indi fi ay seetar nay ndox ci oto yi benn moom mu ci nungoo jox gaasuwaal ñu jël ko amul sëñ Abibu Mbàkke mi ne Tuubaa ca kanam sëñ baa ngi koy séeral ay caddu cant ca di ko ñaanal tey xamal mbooloo mi ni ku bëgg sëb dërëm ci liggéeyam sëriñ Tuubaa bi sëriñ bi nee na ku yaakaar Seex Basiru fa alxuraan jox na la ndigal carte ca kanam Tuubaa ca kanam ñetti mi dërëm ku xëy na ko dagg tey nooru daara ci ca lépp njariñ lay doon